Kötü baa ngi laaj ay jugeem nee na Thiat Daouda Fall pare nga Kaw Gourdin pare na arbitre bi sifflé na 4 décembre il est demi maa andi ki nga xamante ni nii mooy Baye Djili Baye Djili noo gisee boobu combat. Ousseyn bi ñaari xale lañ yoo xamante ni ku ci nekk. naanaan la ci làmb muy kaaw Gourdin di Caatu Daouda Fall waaye ku ci nekk dafa am lu ne avantage am Caatu Daouda Fall nii muy bëree moo doon avantage am combat bi bu gaawee avantage la mais bu doon may Kaaw Gourdin damay yéexal kombaa bi téye ko bàyyi xale bi mu indi affaire xale parce que mbooloo la indi géejawaay am na fu ñu ko yaakaaree jàpp nañ ni adversaire am du Kaaw Gourdin bu doon may Kaaw Gourdin dama koy bàyyi combat bi rek di ko déglu. jaay ko expérience ci làmb ji ba mën cee génn. bu amoon xeex kan lay arrangé. xeex bi bu amoon caatu daaw dafa lay arrangé parce que moom moo gën a jot loxo te boo xoolee moo sut tuuti gis nga ña xeex ñoom ñaar gis nga xeex nañ kaaw jël na ko jàpp na ko ñoom ñaar Ousseyn gis nga ñoom ñaar en tout daal ñu ngi bëre tegal 16 dina ko daaw wala déet xale bi bañ na doole Ousseyn. doole. combat bi du gaaw doole ndeysaan xale yi dañoo doole. kaaw fu mu koy yegg sore na nga yaakaar naa rek. ndeysaan du ndeysaan gis nga doole Ouzin doole xale baa ngay bëre ma ngay bëre doole dina ko daan wala déet arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé na man daal Ouzin xamatuma ci dara xale bii ndaanaan la caatu Daouda Fall jar naa bàyyi xel gaaw guddee fii mu ko yegg ku mu fa yegg jeex na est-ce que waroon naa waru rëcc waaye dafa am doole li ma la wax relance bi ak doole ji mu am da koy génnee ci làmb ji su doon may kaaw gurne lii ma def sax du ma ko def da ngay taxaw téye xale bi ndax bu jaaxlee ba xamatul lu muy def day daw pour aspirer jeexal combat bi. nga yaakaar ne kaaw gurne la mu xeexoon la mu njëkkee ci xeex bi baaxul. baax na parce que dafa cokkaas xeexul dafa cokkaas pour buntu feeñ mu daw ñëw moo tax bi mu cokkaasee buntu feeñ yegg na xale bi fu sori. mais dama gis xeex bi jaar yoon ndax ku yum doo yëpp dafa daal gauche droite bi yëpp dafa dal. waaw door na ñaari gauche droite mu dal da ko rappel door sànni gauche indi droite mu dal mu daw ànd ak coup bi moo bi mu jàppee xale bi da koo yegg fu sori xale bi tamit doole ju mu am moo tax ak lecture bi mu am moo tax sa bi ko caa kaaw gurde yeggee fu sori dafa am lecture am na mbër yoo xam ne bu bari bu leen yeggee fii dañuy tiit ba daanu duñ xam sax lu leen daam waaye loo mën a xam mooy combat bu nar a neex lay doom mais li mu li kaaw gurde firnde ci effort nga yaakaar mënu koo yàqal ci làmb ji. déedéet du ko yàqal ñoom ñaar ñëpp ku ne liggéey na ci combat xoolee kaaw gurde liggéey na caatu daal dafa lu ma la wax dañuy xeex dinañ xeex ndax ku ci nekk ñam na sa bu doon may Kaaw Gourdin du ma xeex dama koy sàcc xeex bëre ndax xale bi daa am doole daa mën a bëre. mais mais mais Thiat Daouda Fall li muy maye bari na de. ña ngay xeex kay. ña ngay xeex la muy maye bari na. kuuya daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko kuuya ba mu jël baax. daan na ko xeex bi arrangé wu ko. Kaaw Gourdin daan na ko. waaw waaw daan na ko Ousseyn. mu jël moo baaxul dafa kaaw. Kaaw Gourdin daan na ko jël bu rëy. Thiat Daouda Fall dafa kaaw. door na ko door yu du wóolu boppam ci combat ba moom. Kaaw Gourdin daan na ko. xoolal booy Kaaw Gourdin. ñoo nga noonu. bàyyi leen suñu sees ngeen di yàq. bàyyi leen suñu ngi noonu. Oh, xale bi bëri na. ndeysaan boo ko gisee. li ma doon wax rek. ndeysaan bëri nañu ñoom ñaar combat bu na. tay géejawaay xale yi am nañ lu leen bett ndeysaan Ousseyn Kaw Gourdin bëre na bëre bu rëy daan xeex na xeex bëre bëre